waa Lu Xew TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di ziare waa maîtresse ak nekk si kër gi ñëpp di def commentaire si théâtre bi am na solo trop waaw di kontaan ci Marème Diagne Marème Diagne Marème Diagne moom sopp nañ ko lool allah ndax daal moom xale bu feres la feres na lool loolu si ci ñaareel def na ko ndaxte moo am na fulla ci boppam am na fayda. lala nag moom bëggoon naa ko lool sa doog a tàmbali ba waaye nag fi tool ni mi ngi yàq aw wayam li ma bëggoon daal mooy mu jàpp Marème Ndiaye ñu def ko ne rakkam teete ko gunge ko ndax Marème moom naqari wu ta waxal dafa ëppal rek ëppal ëppal daal la def waaye moom naqari wu ta waxal bu ko rek ànd ak moom ndax boo gisee li tax laal am ñëw kër Marème Marème ñëw kër laal la ngir jël si ayam. mooy Cheikh Diagne biñ demee leen demeyal ba dafa waxoon Marème dana ko jàll si si biir mu ko laal la ay te lislaam lim ma may damay bañ bàyyi li ma lislaam may loolu laay bañ léegi tey nag loolu noonu moo tax Marème tamit moom it mu sañ a jël si ayam Cheikh Diagne léegi tey moom foofu lan la fa naroon est-ce que du moom bu reeroon bu gën ñu guddee du fanaan Marème daal bëgg naa ko. li ma bëggoon mooy mu yóbbaale sañceem ba ñu summi ko yóbbaale filfilaaleem boobu ma defoon sànnee ko ko ci kër seex Diagne nag mu xam ne nag premier fekk fa laal la ñu xam ne nag Marème moom it ñaari bu pare la bëgguma woon mu summeeku maîtresse nag neex na trop macha allah Moussa Fadim it kontaan nañ ci moom ndaxte moom it gunge na rakk waaye gunge na ko ba ci kanam na ko na ko jàppale ndax jigéen ci boppam xel mi dafa tut te ñun lii xamuñu mu amuñu lu suñuy waajur am na ci yenn yoo xam ne dañuy maslaa ñoom ba génn ci rek am naa rek lool moo ko jàpp foofu rek bëggoon a maslaa waajurum ba génn ci lool for noonu loolu dal ko ci waaye Moustapha na ko comprendre rek xam naa góor gu baax la moom ah, yaay rek tamit xam naa ne moom bokk na ci waajur yi nga xam ne ñu wax ne ëllëg waajur yi danañ amal seeni doom àq loolu am na ci ndax doom danga koy nàmpatal ci sa bopp mu lay jege di waxtaan ak di la ñeme waaye moom tànk gisante wu toog Moustapha rek bu gisee yaayam du xàppi du def neen tak doom bu jógee ca ki mu bëgg bu ñëwee ci yaayam war naa mën a xàppi waxtaan ak moom. Trestar neex na macha allah Cheikh Diagne nag ñoo ngi koy wax nag moom hmm, ku wer ñaari jabar da nga yemale day yemale waaye Cheikh boo ko mënoon nga bàyyi ko. asalaamaaleykum waa maîtresse maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen wax macha allah li ngeen di def neex na trop trop trop trop trop macha allah man moom affaire bi moom wax dëgg yàlla ma euh, Jalika moom ci gën a metti daal moom parce que fu mu toll déception rek lay am fu mu toll déception rek lay am wax dëgg yàlla te xam naa tamit bis bu yëgee nii. papaam mooy def manigance yooyu yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp dina gën a am lu ko metti wax dëgg yàlla man moom loolu moom daf ma touché tellement jëli ko daal moom ak Racky ñoo ma ci gën a touché ci affaire bi pourtant nag laal la moom wax dëgg yàlla li mu def daa fayu rek daa fayu ndax gis ngeen ni ko Marème def Marème defoon na ko noonu te Cheikh amul ne dugg na ci Marème mais du ci génnee noonu parce que pànk la pànk la pànk la torop sax ndax laal la lu nekk def na ko mais tamit xam nga fekk sa kaw lal jigéen joo xamante ni sa wélag sa jëkkër dafa metti torop torop torop torop man mi di waxante yow dund naa ci lu baree baree bari boo xamante ni ñun ñaar ñu daan toog tëddandoo nii ci benn lal mais ma xëy rek bett ak sama jëkkër ah loolu touché ma trop loolu moom du ci ñàkk du ci ñàkk boo boo boo boo gisee lu mel noonu faaw nga am déception loolu du ci ñàkk te tamit wóolu ba nga wóolu woon sa jëkkër tamit doo ko wóoloo noonu dootoo ko wóolooti yàlla loolu rek moo ko jàpp mais finalement lépp daal moom macha allah daal moom série moom neex na trop moom macha allah. salaamaaleykum maa leen di nuyu bu baax a baax vraiment tey moom dama am lu ma metti trop trop. dama am na ma metti waaw parce que Sey Diagne moom ni muy attaqué Marème moom moo ma neexul moom dafa mel ni respecté wul Marème dara parce que saa yu la amee problème ba xolum metti rek moom si la si Marème daal lay ñëw di ko di ko di ko sonal di ko metti daal te ñoom ñaar ñëpp ay jafar lañ ah vraiment Marème moom yërëm naa ko parce que moom def na devoir am laal oh la si jàmm. mais la tamit kenn xamul lan la bëgg moom dafa mel ni jaamu moom ràccu ci dara ah Marème dafa weex donc rek walla waaye tamit lalla kenn demul mu des moom daa war na xoolaat toogaayam parce que aawa yow yaa war a toog bëgg jàmm sax mais sa ñaareel woo la pour ci jàmm yow nga bañ loolu ba pare nga ñëwaat di jaxase Cheikh Diagne tamit war nga xool sa toogaay bu baax a baax kilifa si kër moom du réagir nii war nga mën a def sax nga toog Marème toog nga laaj ko lu xew et puis et mais yow da ngay ñëw rek di si kaw nit ki comme noonu loolu moom vraiment tey moom sama xol neexul moom hmm? vraiment tamit Jalika moom tamit yërëm naa ko trop joor li mu ko def moom joor moo yay daw parce que moom du xarit te du an àndandoo vraiment joor moom li nga def moom ñaaw na trop ah Jalika tamit moom. mu muñal nga xam ne sa xarit moola moola moo la ko def muñal nga xam ne yàlla moom ku mu bëgg rek lay teg nattu vraiment li ngay dund metti na torop waaw di la masaw bu baax a baax pasa moom film neex na torop série bi neex na lool lool waaye da ngeen maa war a jël sax si série bi ma nekk xaritu Marème bu meree ma di ko consoler parce que man moom vraiment bëgguma Marème mer dara waaw bëgg naa leen bu baax bëgg naa leen bu baax série bi neex na lool macha allah waaw li ma ci gën a neex nag mooy que ni Moustapha ak Racky quoi dëgg yàlla euh, Moustapha ak Racky seen seen mbëggeel dafa naturel naturel euh, nekkul ni dara da cee day dëgg-dëgg réalité Sénégal quoi ba dëgg yàlla xam nga waaw et puis Moustapha tamit dafa wane boppam dafa wane boppam ni xam nga awma et puis tamit gëm boppam même Racky dafa gëm boppam quoi xam nga. série bi daal neex na quoi gaaw leen ngeen continuer ko wax dëgg yàlla ñu ngi koy suivre wax dëgg yàlla ñu ngi koy suivre bu baax a waaw boo leen ko daggee fii nag dana leen mer a trop waaw. asalaamaaleykum waa groupe bi ah groupe euh, maîtresse ñu leen nii di leen siyaare ah, di leen bëggee lu bari waaye di leen wax ne film bi suivre nañ ko démb de façon man li mu ci euh, jote ko xam dara maanaam man. Mm, suma ma laal daal maanaam moom mu ñu doxalee ak Marème su ma daal moom loolu moom noonu daal maanaam dañuy bàyyi mu sedd daal parce que laala moom dafa jigéen bu bëgg jëkkëram tamit maram tamit dafa doon koo xam ne dafa bëgg see jaañ trop et puis même laal li muy doxle du jo gaa yi gisee woon ko noonu daal ah su soobee day mel ni day mel ni maram yaatu bëgg a jàmm ñu ah. ñun da gis à part beneen bi nag muy Racky ak Moustapha Moustapha moom suñu sañ day commencé Racky rek parce que jigéen moom bu bëggee tamit day bëri tiitar xam couple bi seen couple man couple ma neex la man dama neex trop seen li ñu dundee neex na man trop vraiment ak euh, beneen biti maanaam bi mère bi ak yaay yaay yaay yaay rek ak papa yi rek ah de toute façon raki papam rakam de toute mu xam dëgg bi quoi dafa war a xam dëgg bi nii waaw dafa war a xam dëgg bi rek dafa war a xam dëgg bi li mu dafa métti parce que a chaque fois mi dund naqar naqar boo xam ne mos a jeex mukk appartement beneen bi di euh, Cheikh Diagne ak Biram Cheikh Diagne fi mu sañoon ni day comprendre Biram xam Biram rakkam la quoi te rakk deret dafa for ok dina jaajëfal nag bu baax a baax. salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu maa leen di nuyu ñëpp waa sit bi di leen ñaanal jàmm di leen baalu àq di leen baal àq bu ma sëkk sëkk sëkk sëkk. la wax yu démb nag seex weera na nekk seex jaañ moom démb weera na carrément nekk vraiment merloo na ma démb merloo na ma démb trop trop trop trop suñu maree mi daa warta mer nekk ah seex na yem nekk na yem te xam ne pexe yu jigéen moom dafa doy waar pexe yu jigéen dafa doy waar na tey moo gën aawa yaa ngi noonu daal waaw di jégalu di wax man ci film bi laay wax muy bi nga xam ne moom mooy dow jamono ji di ñëpp di si wax euh, man nekk euh, film bi li ma si wax lu bëriwul parce que diggante kaawu Marème ak euh, kii joor waaw côté boobu daal man mooy son problème quoi parce que joor nu muy waxee kii xaritam la ba pare mu walbituwaat ñëwaat di sëy ak jëkkëru xaritam affaire boobu tamit euh, jaaxal na ma lool lool sax waaw beneen bi muy diggante Lalla ak euh, Marème Diagne parce que laal tamit yaakaar na su ko Marème wooyee téléphone euh, pour ñoom ñaar ñu neexoowaat xam nga toog waxtaan man sama gis-gis ak lum métti métti ak lum ki nga xam ne mooy mm, jàppaloon na ko ak lum ko mën doon di jàppal daal daf ka waroon a bàyyi ñu mën a toog waxtaan mais waruka wax na ko bu ma woowati wala seex ñëw mu koy wax loo xam ne nii Mariam Diagne wax ko Lalla tamit aussi côté bu war naa xoolaat bu baax côté boobu li mu siy def quoi parce que Mariam kii dakaa woo pour wax ko ñoom ñaar ñu toog waxtaan seex ñëw mu wax ko li nga xam ne kee wax ko ci téléphone bi aussi tamit beneen mbir bu xaw a doy war tamit mu ngi waat côté boobu waaw mais vraiment tamit aussi film bi neex na moom neex na lool lool sax neex na lool macha allah. mais Lalla moom Lalla moom moom laa faraloon wante nag tamit ba daf bi rek loo ci waru woon a def waru woon def moom dara bettu ko ci ndax lépp xam na ko avant kon su ñëwee mu war a dëggal boppam jàkkaarloo ak merem wan ka ni jeeg la jeeg nga may jeeg ñu jàkkaarloo ñoom ñaar man de bu doon man la ma taxee palaasam du am si man benn problème du ma jaral yenn yi tamit. Eh, duma ko jara mais neex na nag neex na trop neex na trop neex na trop loolu daal mooy moo si kii daal man si sama xalaat ke ni su Marème defraatoon wax yenn wax yi rek moom daal seen série bu daal neex na trop daal salaamaaleykum nii naa leen yéen a ngi ci jàmm bu baax waa man dama bëggoon a commentaire tamit ci lii que te Marème moo ma tax a jóg Marème moom Marème lu muy dund ak Cheikh Diagne ak wax yu muy wax ak Cheikh Diagne yooyu tamit su fekkee mën na ko defaraat mu defaraat ko te xam ne série bi ñëpp koy seetaan mag ak ndaw ñëpp koy seetaan ñu am tuuti yoo xamante ne daal defaraat nañ ko ci ci lu muy dund moom ak Cheikh Diagne que Moustapha ak moom seen couple moom lu ma neex la moom loolu moom neex na ma trop trop sax. waaw salaamaaleykum Lu Xew TV bi seere naa leen ci loolu nekk mais man damay dikkaan ci kaaw laal la man laal la waaw boo exemple laal la laal boo demee ba mën takk la ñaareel nga war a gën a gëm sa bopp mais pas ngay dem di sosal koo xam ne deful la dara ah deful la dara waxul la dara te dafa la woo téléphone laal dama bëgg ñu juboo ñu nekk xarit boole jàppale suñu jëkkër waaw te defe naa nag lii bu demee ba sax yaa xam dëgg bi boobaa gëm naa dina metti sa côté trop sax te damay ragal nga ñàkk waaw firi daal neex na daal macha allah am na solo trop billaahi ay temps ay thèmes yu am solo lañuy ñuy la Cheikh Diagne tamit moom biram ah kenn entreprise kenn entreprise papa la kon nag moom xaw ma nag noonu la kon nag <coughs> war na ko mën a jox li wàllam mu liggéey comme que nee na ñëw na ba coom na ko dinaa changé ma bëgg nga joxaat ma liggéey damay takk jabar te yoruma dara en tant que tànk ay mbokk en tant que doomu baay en tant ay frère kon nag war na ko mën a dimbali daal koy dellusiwaat te dina changé kon na ko jëlaat mu nekkaat ci entreprise bi mu liggéey mu jàppale ko asalaamaaleykum nuyu naa leen jaar naa leen yéen ñëpp maa ngi leen ci jàmm alhamdulilah waaw macha allah chéri bi moom ni ñu ko gisee macha allah neex na neex na trop trop trop trop dëgg yàlla ah, gars yi ko gisee ak chéri bi ni amee du noonu parce que affaire bi loo ci xool rek loolu ngay gis ñu ngi naan ñu ngi yàqalee mais dañuy wane ne safar bu la takkee du la te famille duñ la respecté loolu moo fa nekk mais nekkul comme ça léegi ñu ne la. mun nga ànd ak sa sa copain avant mu lay takk non maanaam boo ànd sa copain avant mu lay takk bu la takkee tamit respect du fa nekk parce que gis nga Marème lu muy daj fu mu ne ñu ngi koy xas naan ko liy wax jooju noonu loolu la loolu la ñu moytuloo xale yi nañ bàyyi xel lool noonu loolu la macha allah moom rafet nax dëgg yàlla alhamdulilah. asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu sere maîtresse di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa bokkal euh, commentaire yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar bu baax a baax a baax di leen baalu àq di leen jéggal si weeru koor ngeen di jóge ni maa ngi leen di jéggal baax di leen baalu àq euh, di ñëw rek ci sere maa ngi ñëw di euh, bu démb bi daw mais bu démb moom kontaanuñu si kontaanuñu moom ndax xam nga ñun Marème dañ ko bëgg trop trop trop kontaanuñu si de ndax euh, seex seex na doxal yëfu góor waaye na def yëfu góor ndax li muy def euh, kilifa du ko def boo bëggee yor ñaari jabar ba su ñett moom waroo di doxale noonu waaw benn jabar walu laa wax dara rek yow nga tëb gémm ko ba dem di xuloo ak kee daal du yoon daal xam nga Marème moom deful dara bii paax waa lépp euh, laala la laala moom moom dama bëgg mu gëm yàlla rek waa lalla dama bëgg mu gëm yàlla ndax lalla li muy def tegu ko fenn li muy def tegu ko fenn day tax sax mareem du ko teg fenn du ko respecté waaw moom daal moom nit ñi weddi nañ ko daal weddi nañ ko li naan aawo balaa ñuy xam niñ mel dëgg-dëgg ñu takkal ko ñaareel mais yow la yow loolu moo la dal tey yow nit ñi xam nañ sa jikko yow li euh, ngay doxalee daal nit yow xanaa wóolu sa bopp yow danga war a sa bopp nga taxaw dëggal sa bopp waa nga defar ba baax comme marem mais yow xale bu ndaw nga bëgg a fitnaal di ko waxal loo xam ne amul naka su dul noonu du yoon tegoo ko fenn waa yow wóoluwoo sa bopp ah waa yemal waay nga bàyyi marem waa nga bëgg yow woote woo jàmm de yow bëggoo jàmm yow mi aawa yow yaa war a sàkku si marem jàmm ngeen ànd jàmmoo mais yow moom bëggoo ko moom bëggoo jàmm yow moom jàmm moom bëggoo si dara te yow marem foo ko woo mu wuyu la de waaw foo ko woo mu wuyu la waaye sant bi moom maslaa def na lu nekk pour jéem a juboo ak yow mais yow daal nga lànk waaw Marème foo ko woo daal mu woy la si boo ko woo si jàmm muyu la nga woo ko si seytaane mu woy la te xam naa ne ci seytaane bi la lay ndax bu dee seytaane Marème moo la ko ëppale de moo la ko ëppale fuuf yow mag nga to Marème xele la waaw te xam naa ne Marème waxam rek xëjul si yow gën walam xëjul si war a régler nag nga téye Marème bu baax a baax a baax waa seex moom comme ni mu wax rek euh, na doxal yëfu góor waa en joor moom joor moom li mu def tegu ko fenn fenn def na lu ñaaw la def waaw mu Moustapha moom na jéggal rakki rek ñu ànd waaw ndax euh, bëggante nañ ñoom ñaar bëggante nañ nag na taxawul na ko déglu rek après ñu waxtaan àndaat kom ni mu defoon rakki tamit bañ a defaat comme noonu daal ndax neexul ci xol waaw leen jaajëfal maa ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jéggalu ci kiibu gudd bi noonu xam rek tey moom dañoo xawa kii ci épisode bi daw ne mais muy loolu waaw asalaamaaleykum sama gaay Lu Xew TV ñu leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp li leen jox seen wàccuwaay di leen balu àq si julli gi jóge man nag euh, wax si épisode démb bi mooy euh, Jalika man sama fan si la wax dëgg yàlla mais bu ma sañoon nag mu tourné beneen page bàyyi biram xëy na li ko xarit def metti na mais su ko su ko defee soog rek dafay dafay dafay mel ne xelam dafa nekk si moom te dafa mel ne sa xelam dafa nekk si biram ñun sa fans yi Jalika ñu ngi ne la nga nga nga tourné waat beneen page nekk kooku noonu na kooku moom li mu wane mel na ne góor gu am yërmande la te am na fulla te am xam nga li ko tax jóg nga bàyyi biram te nga na nga yar say doom ñun loolu lan lay wax nee na avec loolu moom lépp neex na macha allah laa la yewit dëgg yàlla bëgg nañ la trop mais buñ sañoon doo doxalee noonu maanaam yow it yaa li ngay joué nice na yéen ñëpp daal affaire bi daal nice na ñu ngi leen ñaanal mu doon i télé télé télé xaalis bu bari sutura si barke suñu borom yàlla bàyyi leen fi yéen kenn bañ mànk manqué si barke Seydina Mohamed na trop trop trop merci yéen ñëpp ñu ngi leen di ñëw di leen def seen wàccuwaay. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay waaw di leen sant di leen gërëm nag di kontaan ci. ci lu xew TV waaw lu buggoon wax ci émission kii bi euh, série maîtresse d'un na marié série bu neex la macha allah wax dëgg yàlla Sénégal yëpp gis nañ seen bopp surtout ñun jigéen ñi waaw di wax nag euh, di rafetlu torop torop torop ci waa lu xew TV mais série bi man ci sama gis-gis ak sama jàngat mooy. laalal kii deful dara Marème deful dara Marème daay weex dunq rek dafa weex dunq mais deful dara te it euh, euh, kii Cheikh Cheikh Diagne dafa war a teey nit du nekk benn nopp lu nga wax rek nga ñëw rek attaqué da teey parce que tey bu demee ba xam dëgg bi dina am gàcce te wax dëgg yàlla Marème deful dara te laal aussi tamit na dal rek te xam ne tam wujje jarul yenn yi waaw ci sama xalaat boobu di waxaat encore tamit ci kii keneen ki Jalika Jalika ji nga Jalika bu la dara metti parce que lii mooy àdduna xarit moom amatul ci àdduna bi xarit amatul de sa meilleure copine moo la mën a def nii sa ex mari ah man xamatuma ci dara mais yokkal mu ñu góor góorlu rek yàlla mu nga jëlee denc lu baax lu gën te dina ñëw incha allah mais Marème moom wax dëgg yàlla sama artist la macha allah jàmbaar la. asalaamaaleykum waa Lu Xew TV. maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax na ne seen émission bi am na solo neex na te it mën nañ cee jàngat lu bëri man daal dama xaw a am déception ci Lalla parce que Lalla dafa nekk première dame te ku nekk ku ne xam na ne première dame dafa war a am noo toogee Lalla ci commencement ci euh, film bi su fekkee num mu dundee ci commencement ba noonu lu continuer ba tey kon Marème day am gàcce. mais dafa dem ba ci biir soppi ay jikko noonu première dame du doxee noonu waroon na mën a récupérer Marème mu uuf ko comme jëkkëram da koo bëgg ku ne xam na ne Cheikh Diagne bëgg na Marème kenn waxatu ko parce que gis nga gis ñun ñëpp gis nañ ñoom ñaar liñ dund kon waroon na see mën a rafet mais man daal comportement bu mujj daal man neexuma parce que day dund màtt di ëf te loolu baaxoo su nit ne toujours. Euh, Euh, visage bi nga wane rek continuer noonu moom bu fekkoon ni mu wane woon ci commencement ba noonu la continuer ba tey ñu bari dañuy roy ci moom parce que ni mu commencé dafa neex toppatoo këram toppatoo jëkkëram donte xam na jëkkëram li muy dund mais lijjantiwu ko même bu fekkoon mu ngi ko lijjanti ci suuf sax fësalu ko daal parce que ñun yéex nañ koo xam mënoon na continuer bëggul lu ko neex ak lu ko naqar boobaa day doon vrai premier drame mais après dem ba ci jik digg dëgg bi indi ay yeneen jikko daal bëgguñ yooyu man daal Marème tamit aussi neex na ma benn côté parce que Marème amul deux visages toujours benn visage am rek lay indi man loolu aussi neex na ma ci Marème parce que dafa direct moom dalay lay wan ne ni ma mel noonu laay dundee depuis Chérif ba mu commencé ba tey wax dëgg yàlla changé wul jikko daal Marème changé wul jikko place bi mu taxawee place boobu la laal waroon taxawee waaye laal wujj moom <laughs> mooy loolu me moom waru Marème waru ko tiital xam nga ban wujj moo ko waroon tiital wujj bi nga xam ne dañ kaa fekk xale bu ndaw takk ko ci kanamu yaayam ak kanamu papaam mais bokkut ak mi nga xamante ne est-ce que euh, si si si Cheikh Diagne nga commencé kenn xamul parce que amoon na benn copain wax na waroon na koo takk ko copain bi dem xaw ma takk keneen mooy loolu kenn xamul luñ dund man wujj bi métti te mooy wujj bi nga xam ne dañ ko fekk muy xale bu ndaw takk ko si wutiyaayam indi ko man kooku laa tiit waaye koo xam ne yow dox na ba ràpp xam na sa saal demee nu mel xam na sa chambre à nu mel man wujj boobu dama sonal bu ma sañoon daal laal la en tant que première dame mu defaraat toogaayam daal mu mel ni mu meloon bu njëkk ba parce que loolu la ñuy séntu si moom parce que ku ne xam ne ne aaw moom toujours da nga war a tëddee njaaxaanaay lu daal laa amoon ci lu wax ah man moom sama actrice bi mu bëgg sama xol moom mooy gel boobu mami la je crois que mami kii tatouage yaram bi man bëgg naa ko trop parce que moom nooy stress lay dund moom sonalul kenn moom gis ni muy dundee sonalul kenn kenn du ko sonal man daal man kooku neex na ma mooy sama actrice moom merci. maaleykum ah maa ngi leen di bëgg nag di kontaan bu baax ci seen série bi dëgg yàlla am na solo njàngat yi bari na ci biir. en tout daal lépp njàngal la daal en daal yéen a ngi bàyyi seen waar bu baax ci réew mi waa di rafet la bu baax nag man moom sama commencement ci laalal laa koy jëmale parce que laalal tamit dafa xam dafa war a xam ne jigéen ñi bari nañ torop te ki jiitu bu xajalul keneen rek keneen du mën a dugg te te wujj moom dafa mënul ñàkk te lu mënta ñàkk faaw dafay am parce que nit ku ne ñaan nga yàlla dem am doomu baay xam nga doomu baay dafa neex lool na xool ci moom fekkee ni am na doomu baay ni mu neexee ci moom Cheikh tamit noonu la bëggee beneen doom waaw ami doomi baay mu neex lool ci ñoom la daal lim commencé woon suyee daal wax dëgg yàlla macha allah ñëpp daal ñoo ngi ci doon publicité waaye instant yi daal li mu commencé waat di suyee moom moom man ànduma ci daal parce que wujje moom da dul dara te ñoom ñi jiitu ci kër gi ñoom ñoo war a indi jàmm su ñu indee jàmm rek ñi ñu leen ñun ñi leen fekk si doxal jàmm parce que Marème moom mi ngi koy woo ci jàmm moom mu gën koo ko ci ay te Marème moom xam nga ni moom defante rek lay def waaw Marème moom xañ na bari na day fël di tël di sànnee ko waaye tamit ni ma ko gisee tamit nitu jàmm la ku ko woo ci jàmm ne mu fekk si la ci jàmm maram moom maram moom wax dëgg man ku ma neex la parce que moom fu ne la mën a génn daal macha allah yàlla na ko laal dafal cat en tout cas daal laal daal su ma doon moom ma daal mu fekk si ko ci jàmm ji mu ko woo Cheikh tamit mu xamante ni si ñaari jabar boo leen yoree bu la kii waxee doo war a dëb rek dal ca kee parce que yow mi nga xam ne gaa jiitu ci kër gi bu la indilee keneen mu fekk si la rek sa du neex une fois danga ko jéem a sosol danga ko jéem a yàqal lu ne dinga ko ko jéem a yow góor tey boroom xel yow yaa war di gëstu ba am lu leer nga doog a dem wax ak waaye warul dem rek tëb ci mareem ni ko lalla nee na dama ko kii saaga dem rek tëb dal ci mareem ni ko lan moo tax nga woo lalla di ko saaga te bi muy woo lalla jàmm ak salaam moo taxoon mu di ko woo lalla attaque ko foofu sosol ko beneen bi mooy ci yaayu Cheikh yaayu Cheikh dama bëgg mu xam ne sëy fenn ko yàlla tudde rek foofu lay am te su ma yoon nag mu yamale leen ñoom ñaar ñëpp parce que ñoom ñaar kenn ku ne dangaa bàyyi kër ndey bàyyi kër baay pour su ma soñoon daal mu yamale rek te bañ a jël kee bàyyi kee bañ a suufeel mareem kaweel laal la su ma sañoon moom mu yamale leen moom moom wax dëgg yàlla li muy moom wax dëgg moom neexuma dara daal parce que maire bi moom daal mooy loolu li suyee daal wax dëgg yàlla ma doon mooma daal ngi jéggalu maa ngi duggaat sax bëggoon am leneen lu ma wax mooy ci yaayu Cheikh ndax euh, yaayu Cheikh moom euh, dafa war a jéem a woo Lalla mu toog mu woo Marème mu toog mu jëm leen a jubóole parce que bu leen jubóolee loolu mooy jàmmi doomam loolu mooy jàmmam ndax seex mi nga xam ne mooy doomam bu amulee jàmm moom moomu du yaayam du am jàmm xam nga mais su jàppalee lal du trop rek xam nga te déjà sëy bi am na ba pare tamit seex euh, gëm naa ne kenn mënul fexe ba mu bàyyi euh, mareem waa kenn mënul fexe ba mu bàyyi mareem kon man yaayam daf ci am rôle bu important boo xam ne que war na ko mën a jouer pour mën a def ñaari gorom yi nekk ci jàmm pour doomam mën a nekk ci jàmm Cheikh tamit bëggoon naa ko wax dara bu fekkee ne mën na wutal Marème fu mu nekk mu bañ koo yóbbu kër laal la xam nga ba situation yi euh, jàmm gën a am mu soog ko fa yóbbu parce que sinon euh, góor bu fekkee ne am na ay problème ci këram fa mu nekk di liggéey du fa am jàmm fu mu dem du tranquille te loolu cause boobu lu koy gën a def mooy mu boole leen te amaguñu jàmm man pour man dafa war a bàyyi Marème mu dal mu bàyyi Lalla mu dal ba ci kanam mu xool nan lay euh, gérer situation bi soog leen di boole kër bu leen di boole kër sax mais instant bi dafa tàng te nekk lu bees loo xam ne que Lalla ba tey digéré gu ko xam nga. ba lu Marème def wala mu wax ko du ko duñ ko gëm xam nga ba pare tamit euh, li ma gën a loo xam ne neexuma ci ci film bi mooy euh, sempre toujours bu jot ñu ngi koy wax càgga euh, bi càgga bi càgga bi càgga bi non non loolu man bu doon sama sago ñu waxee ko beneen terme bu bu bu rafet xam nga waxee ko neneen daal parce que na ne loolu day nekk lu woy woo xam ne du fay ci bëtu nit ñi du fay ci gis-gisu doomam ji nga xam ne day toog di ko fekke parce que xale day enregistré xale lu mu màggaalee rek loolu du ko fàtte ba ilaa yoomi diini te amaana ne tàntam ji tey bu demee ci këram gi toog mën na ko koy xoolee te bu ëllëgee mareem bu fa amee ay doom doom joo doomu seex jooju mën na koy xasee doomi mareem yi wala mu taxaw ak tàntaam wax ko loo xam ne waru ko ko wax ndax jigéen la te bu ëllëgee laal doomam jooju day sëyi kon war na war nañu changer terme caga caga caga biñ koy wax ci kanamu doomam bi ak ci kanamu xayitu cheikh yeeg yooyu loolu moom bëggoon naa ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax parce que tamit euh, comme que ñun bu ñu bu ñu déggee dara rek euh, Sénégal dañ koy jàpp dañ koy jàpp looloo tax nag. Euh, na ne laal la astafurla amaana ne euh, Marème loolu ñëpp ko koy xoolee ñëpp ko koy xoolee moo tax euh, moo boobu il faut ñu changer ko ci comportement xale yi parce que xale day enregistré te boo xasee ba dugg ci sëy continuité la te continuité bi mu am mooy say doom dañuy ñëw am doom sa doomi doom am doom mu nekk loo xam ne ko way wudul fay la waaw moo tax ñuy def attention bu baax euh, ci euh, ci moo boobu ci ñun ñëpp laa koy wax sama moroom jigéen yeeg ñun ñëpp parce que ñun ñëpp ñoo bokk waaw ñun ñëpp kenn mënul dem bàyyi moroomam maa ngi jéggalu bu baax nag ci duggaat bi bu baax merci beaucoup xéewal salaamaaleykum maa leen nuyu ñëpp di leen bu baax euh, c'est que maa ngi doon bëgg wax ci Lalla parce que Lalla nga ne boo gisee mu réagir nii sax euh, dafa gëmul Marème ndax boo pour moom euh, ni ko Marème doon def ba tey dafa amul ci moom confiance moo tax pour moom dafa koy jouer dafa am tour bu mu koy jouer moo tax man gëm naa ne mu mu mu mu de mu doxalee nii mu doxalee waaw mais nag <laughs> comme que. film la rek euh, dañuy bàyyi rek euh, ñu ñu ñu seetaan eggali ko waaw mais nekk na daal lu am solo loo xam ne lépp loo xam ne def nañ ko ci daal euh, ay réalité la loo xam ne dafa am société bi dafa am waaw nañu ñun ñëpp ay sénégalais lañu ñun ñëpp ay sénégalais lañu ñun ñëpp xam nañ lu baax ñun ñëpp dañ ñoo yar fi ñu war a yaree mais am na ay rôle yoo xam ne boo demee ba koy joué daf koy laaj. daf koy laaj mais taxul nit bon wala muy won nit lu bon wala nangam ak nangam mais boo toogee nga xalaat rek da lay wóor ne yow lii ñu wax tey wala li ñu gisee tey loolu yow dund ko ko xam nga ba pare dinañ euh, yee nit ñi ci lu bëri dinañ xam tamit bu bëri balaa nit ki di réagir ci dara moo mu xoolaat xam nga xalaat bu baax a baax a baax a baax man daal maa ngi leen di remercier kontaan naa trop macha allah jaajëf xéewal salaamaaleykum mm, di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax ah, waaw ma ñëwaat rek ci série bi di waxaat ah, am na solo série bi daal macha allah neex na lool mu ngi koy siifur bu baax a baax a baax ah laala nag moom mi bëgg appal nag laala lu muy def nii ah laala daal bu mu wàccee nag suñu garaat ñun aawooy laala moom isaan mi ngi wàcce suñu garaat. a li mu def waru ko woon def waru woon a sos waru woon a sos ndax bis bu leeree seex rek ah dootuñ ko wóolu de te ñàkk kóolu te moom sëy fo fa amee dara amut fa li mu def daal moom waru ko woon def waaw te Marème jàmm doon woote waaye daal daa mel ci li ko ci fekk su xamoon ne lii lay doon ah kon du woote cas daal laala moom mu ngi wàcce garaatam dëgg neexul. salaamaaleykum salaamaaleykum nuyu naa leen ziar naa leen macha allah parfois damay déglu seen euh, intervention si euh, euh, kii bi filmu maîtresse mais macha allah am na en fait yi du question Ah, aawoo mbala ñaaxeer mbala di déedéet gis nga moom dafa joué benn lool boo xamante ne tu vois fierté ànd ceeg fulla di gérer normal mu dem ba ci biir bëgg a jël beneen rôle boo xamante ne beneen jikko boo xamante ne commencé wul jikko bopp donc du ànd du ànd parce que moom au début bi lu mu commencé woon rek boole uuf di nos boobu rek la waroon a mun a continuer mais bu ci bëggee bëgale bi du ànd du ànd ko wax parce que rafetul ci moom franchement rafetul ci moom man mii xaarewu ma ko woon ci moom xaare ngi ko doon xaaree mais ma ko woon ci moom tamit des na tuuti foofu parce que li tax des na tuuti parce que warul loon a doxee noonu mar warul woon a tegee noonu tànkam li ko Mariam wax ci hôpital ba rek yaay mag yaay kii da nga waroon jiitu topp ci parce que yow bu xasee ji rek. war nga too def faux am na faux pas ndaw bi ngay def rek keneen ki la ki nekk sa gannaaw rek daf la koy woon te xoolal da maram yëpp yëpp na ko pare yëpp na ko pare donc bu say see rek xam naa ni moom du yomb ci kër gi franchement man foofu daf ma bet sax en fait laala daf ma bett foofu franchement daf ma bett parce que warutoon na a noonu koon salaamaaleykum wa rahmatulah waa Louga TV ziar naa leen laa si jàmm mën naa leen waa ah man de émission bi keroog bi seetaan naa ko waa mhm. mais nag Cheikh mënoon naa teelu de ndax comme que dañ ko wax benn wax mënoon na déglu beneen version bu xam loolu lañ naan nag dóoru benn ku njëkk ci noppam rek yaa ko moom mais daa war déglu ñaari version yi ba xam comparé leen ba xam kan moo nekk ci dëgg ndax xam nga ni laa la waxal kii moom mareem moom mareem def ko mareem jàmm rek la doon ut waaw kon waroon naa déglu ñaari version yëpp waaw man loolu laa mën lu ma si commentaire kii tamit mm, ka tamit mm, kee torompe na ko mais loolu la wax ci xarit léegi rek koo wóolu daal moom moo lay torompe mais koo wóoluwul sax xëy na na ngay gisee ak noonu doxalee du doon benn daal doy na waa trop maa di leen neex na théâtre bi neex na trop macha allah. Ah, neex na trop ñëpp a koy siivu te ñu ñaa koy waxtaanee di ko rafetlu neex ki neex daal civilisé na sedd na baax na rôle yi macha allah mais daal laal la nay bàyyi mu sedd c'est que dem na ba indi loolu métti na nag ne ki nga xam ne dem ba xam ko xam ko ràññee ko dem ba après xam ne c'est que sa jëkkër du neex c'est jigéen jigéen rek ngay mën a doon te nit nit rek ngay mën a doon. ñaareel moo nekk loo xam ne dafa diis boo ko dee gis rawatina na nga xamoo ko comme ça woo na ko ci jàmm lañ dem ci jàmm seen jëkkër a mën a am jàmm fum mu too mais Cheikh Diagne niruwul sax ni Cheikh Diagne bu arrangé pare arrangé fee normalul daal su ma soñoon mu rafet lépp neex ndax affaire yi daal dafa neex no stress te ñu koy seetaan ku nekk dangay xam sa bopp fi nga féete ku ne danga si gis sa bopp lalla del bàyyi muy sedd Marème Seck moo ngi indi jàmm soo bi neex na Racky tamit il est temps mu xam dëgg gi parce que li wax dëgg la il mu xam dëgg gi ok maa ngi rafetlu film bi neex na trop macha allah lafte yàlla na yàlla defal jàmm billaay asalaamaaleykum di leen ziyaar bu baax di leen baal ak tamit li bëgg naa ci émission bi Euh, Marème franchement ku ma ku ma franchement ku ma neex la parce que moom daf ma neex parce que li mu def amul benn jigéen bu capable def loolu jëmul yi ñu toll moom capable na capable na la moom loolu neex na ma ci moom waaye nag li ma gën a ci moom nag plor li wax waru ko wax ak yenn solo bi ñu sol ci série bi loolu la war a bàyyi parce que yàlla nit ñi dañ koy seetaan xale dañ koy seetaan suñu doom dañ koy seetaan suñu yaay dañ koy seetaan ba pour génnee ko te Sénégal nañ nekk boo defee ñu boo defee ñu wax dañ wàññi tuuti rek waa dañ ko wàññi dañ kooku na ma ko yaakaaree ak ni mu amee nii ça fait parce que moom njëkk na meloon melaatu ko instant yooyu day def ay ci suuf di ko naat ba kenn xam te te ñuy romalaat noonu mosu feeñee moom di am gàcc parce que day jël yaakaar ne moo ca nekk te yaa ma gën xam il faut que ñu koy kiyal tuuti taal waaw laala moom ñi ngi commencé bett parce que ñuy doxalee moo fi tut moom daal bu nëbbatu na def lépp mu leer teg ko ci yoon. waaye bi làqatu di génn moom loolu baaxul waaw. asalaamaaleykum waa Louga TV maa leen di siyaare di leen jaajëfal waaw jox sama benn commentaire rek ci ñaar ñooñu di ko jëkkoon ci film bi <laughs> diggante Mariam ak euh, Lalla ci côté Lalla waaye njëkkee Lalla ñëpp xam nañu grande dame la ah defar rek la doon def ci biir kër gi booba ñaareel ñëwagul. ñëpp xame nañ ko loolu ba yaayu seex xam na loolu seex itam xam na loolu waaw xëy na dem na mareem ñëw na fekk si ko ci kër ga ak ni ko fekk see ci kër ga ba niñ ko tàkkee ah, mu mere ci mareem lala du ku bon ku baax xëy na ñaareel moom métti ci xol rek loo tax mu koy sosal noonu sax di koy jéem a tuumaal noonu ci benn côté naan ko mareem mu woote na fi di ko saaga di saaga yaayoo Cheikh Diagne te xëy na lalaw marem woote na waaye saagawul waaw loolu rek yëpp day wane que ni rek itam boo dee ñaareel ci côté marem da nga war a def ndànk bu fekkee dañ lay takk ah, dañ lay doxaan pour def la ñaareel boo ñëwee yow muy xele danga ngaa war a xool ne aaw bi nu mu doon doxee même bu fekkee aaw bi mere wala muy defanteeg yow nga def ndànk rek hmm, ñu xàmme la ci jëf ju baax ak def ndànk bañ a xuloo bañ a defante. waaw bu ko mareem njëkke woon noonu même buñ bu ko lala tuumaale sosal ko kenn du ko gëm kenn du ko gëm dañ naan loolu amoon waaye mareem buñ ko tuumal maaye ne da ko dañ ko ah, dañ naan moo capable na ko waaw ndax sañ-sañ boobu la doon doxee quoi maaye ni lala tegal na ko benn pièce rek seex gëm ko ndax na naan mareem capable na du nekk waaw di leen siyaar bu baax baax di leen wax ne affaire bi na solo trop waaw macha allah. asalaamaaleykum mbokk yi ma fekk ji kër yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu mbokk internet lu xew TV yëpp maa ngi nuyu auditeurs yëpp auditrices yi déglu émission bi di koy rafetlu trop nag macha allah ah, di leen wax ne maa ngi doogu participer c'est la première fois ma participer ci. émission mais di wax rek euh, ci maîtresse d'un doona marié di wax ne man franchement parlant de ma part personnelle rafetlu naa ko wax dëgg yàlla man série bi neex na ma trop trop trop trop te ba pare série bi peut-être euh, am na lu ci nit ñi di lu mais man gisuma loolu y a rien mal parce que boo xoolee benn côté suñuy doom yi ñu ngi seetaan lu gën a pire loolu bu fekkee ñoom lañ cee xalaat aussi. te société bi société bi ñu ngi fiy teg loo xam ne ni moo gën a pire loolu noonu aussi loolu daal man gis naa dara nekku ci bu ñu duggee nag ci côté Marème man a Marème ku ma neex la Marème Diagne maa ngi lay envoyé message bi man neex nga ma trop trop trop ba pare sax dama lay waaj a fii fan sa club Diourbel man Diourbel laa dëkk di la wax ne daal neex nga sénégalais yëpp man li ma gën a neex ci yow da nga sénégalais bi ba mu ëpp da nga saf jigéen maanaam. xam nga bu baax liñ lay wax te en plus bu ma duggee ci côté wujje bi aawa ñaareel man je pense que ne foofu dañ fiy yeete dañuy yee aawa yi nga xamante ni dañu yàccaaral ci seen néegu sëy yi xam nga def teg seen bopp foo xamante ni egguñu fa wóolu seen jëkkër de trop jox ko benn confiance boo xamante ne nii duñu duñu duñu duñu duñu soucié wu ci dara daal fekk na seen jëkkër mu ngi toj ci biti te duñ ko yëg man je pense que foofu la ñuy eetee aussi di wane ne benn côté féminin boo xamante ne nii xale yi tey am nañ ko ba mën nañu ñëw dugg ci sa sa sa sa na ñëw dugg ci sa ménage xam nga nangu sa jëkkër moom ko foofu dañuy wane rek aussi ba tey aawa yi ñi nga xamante ni ñoom moom seen kër war nañoo mën a jël seeni précaution ba nga xamante ni ku leen fa fekk du du nangu seen jëkkër nañ leen waxante dëgg ñu ñëpp ay jigéen lañ kenn ku ci nekk na ngay tojee sa bopp janax ci sa bopp ci sa kawlal yow yaa ko xam waaw man nag du ma nangu sama moroomu jigéen jóge ci àll ba ñëw di brouiller sama mariage wala mu yàq sama ménage loolu duma ko nangu kon nag jigéen ñi fagarluwaat leen ndax lii yeete dong la amul dara lu ci nekk wax dëgg yàlla xeebu ñu ñaareel yi xeebuñu aawa yi man mii aawa bu ndaw laa waaw aawa bu fees dell place am nag te namuma daray ñaareel ma daray ñetteel xam naa ne ku ñëw boo moytul yow yaay daw bàyyi ma fii sama jëkkër nag dëgg la joxuma ko confiance ba ëpp parce que li ñuy wax rek ku ne góor baax na ku ne sa baay tax benn instant di ko jox confiance mais dina am loo xam ne yaa koy dencal sa bopp encore une fois daal maa ngi kontaan ci émission bi di rafetlu trop trop trop trop trop série bi wax dëgg yàlla di leen wax ne lu man neex la Marème Diagne aussi ku man neex la macha allah biram nag moom man moo may rey biram moom biram man man man man série bi biram moom moo may dajji moom <laughs> maa ngi leen di remercier yoon encore une fois di leen wax ne passe une très bonne journée merci salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waa film maîtresse ah, man de damay woote ci affaire film bi ñuy wax bi ñuy wax ah, diggante Cheikh Diagne ak ñaareel bi ak aaw bi yépp yaay seex Diagne moo def lépp yaay Cheikh Diagne buggul diggante aaw bi ak ñaareel bi dox buggul diggante ñaareel bi ak. di ak këram dox kon Cheikh Diagne lépp lu ko naqari ci mbiram waaw lépp lu ko naqari ci mbiram këram yaayam a ko teg ndax yaayam buggul ñoo bugg ci ñoom ñaar kenn yaayam moo yax këram moo tas këram bugg ci ñoom kenn fii bi nag baax na man gisuma ci wàññeen bu fekkee wàññeen am daal mooy xanaa Cheikh Diagne ba mu demee lii de menace ak ñaareel ba yooyu dafa ëpp moom waaw waaye daal ku seetaan nga seetaan ku seetaan nga bàyyi waaye daal eh, kali kali jaamu moom nit la ku bëgg naa sëy ku ko téye na sëy ci bu jëkk waaye gorom moo ko yàqal jëkkëram ndax gorom da koo bañoon te borom këram it nekkul nit koo xam ne nii bopp ba